di dal ci beneen jigéen naan leen yéen yéen naan ko yow yaa ñàkk fayda Zuleyxa yow yonent yàlla Yusuf mii nekk sa mbindaan nga ñëw naan da nga koy da da da nga koy da nga koy sax en tant que jigéen ak jigéen ni mel ni mu amee valeur Zuleyxa ni leen invité naa leen weer ngeen ñëw sama kër ba mu ñëwee mu peese leen jox leen ku ne benn paaka tegal leen ay foofu Yusuf dafa dugg si rek ñoom ñëpp dagg seen seen loxo yi wa xallaqatil abwaaba wa qaalat hayta lak qaala ma aza allah innahu rabbi ahsana maswaaya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kanam bi ci suuf la nekkoon wàcc ba ci suuf rafet mu rafet boo jàkkaarloo moom da nga koy bëgg yonent bi jigéen danaan ñëw ne ko may naa la saa bopp su ko mënoon mën la may naa la diw nit danaan bëgg may yonent bi doomam léegi xoolal loolu nga xamante ni jabaram bi dañ ko yaay sa da koo bëggoon ba da ko doon fiire sax xarija bi nga xamante ne moo génnoon àdduna fii kan la fi sa sa jabar di fiire ko sa jabar yoo xam ne dafa génn àdduna kon nga war a xam ni kon yàlla du yónni koo xamante ni bi ah dafa ñaaw day yéene ku rafet bu reetaanee ñëpp man koo foto ah waaye boo reetaanee ñu bëgg ko ñaaral kenn kenn kenn am na nit ñi mën am na ñoo xam da nga leen xool bëgg leen ñaareel bi mooy profil nit dafa am solo maanaam nit sa profile dafa am lu muy joué am na ñoo xamante ni dinañ toog Moussa ndaxte lan daf leen a neex kii moom dama koo bëgg wala billaay boo demee liiruñ sax projet soo demee liiruñ sax projet Moussa ñoom dañoo gis rek dañ koo gis mu neex leen mu seen photo photo Moussa lañu jël def ko statut moom lañu jël def ko seen profil moom lañu jël def ko sax seen seen seen seen kii seen faux d'écran yonent yàlla Moussa moom lañu jël des fois maa ngi jéggalu mais il faut ñu comprendre ni yàlla du yónni nit rek ci jaarale ko ci alquran non yàlla mën na yónni nit nit ñi feeñal ni kii yàllaa ko yàlla mën na yónni nit nit ni kii yàllaa ko yónni ñaareel du mooy faaw ñu xam ne réew moo gis pour mu defar faaw révolution am loolu mënul ñàkk ci réew loolu kenn mënta wax ba bam ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la ko yàlla wax usina lillazina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir yonent bi mu nekkee maaka di jàmbat rek ñii dañuy toog ay jour biñ jëndanteeg man biñ jaayanteeg man maa ngi nii jirim laa amul lu ma yàlla lu mu ko wax dana ko jugoon rek xeex fii amul ay ragal ak ay tàppet yonent bi ni ko man ñetti téeméeri nit ak juróom-ñeent ak ak fukk ñeent la te ñi ay junni la yàlla ne ko demal ba mu demee xam nga lu yàlla def dafa def yonent bi pour stratégie stratégie borom bi ngeen comprendre ko mooy nit boo nekkee ci benn combat buñ la daanee boo daanee première fois buñ la daanee te da ngay buñ la daanaatee rek jàppal ni ndax mooy war a ñëw fa force saa yu la daanaa dee ñu ni jàpp nañ Moussa tey dugal nañ ko ci oto yóbbu nañ ko këram livré nañ ko na nekk livraison nañ ko teg sax teg ci càq-càq yóbbu jàppal ne nag tey nag la combat bi soo commencé ndax yooyu bi bi mu demee keroog di xeex yi ñee nekk ñetti téeméer ak fukk ak ñeent jullit ñi nekk ay yéefar ñi nekk ay junni xam nga yàlla na la def ay malaaka la yemal dañu jékki-jékki rek gis benn yéefar daam kenn du xam lu ko lay dañuy eh, jékki-jékki rek gis benn yéefar rek benn malaaka bett ko génn xam nga malaaka boo dëgg yàlla mboq malaaka moom xajul ci nit malaaka bu la mboq nii mboq la nii xajul ci nit xajul sax ci yonent yi nga xam ne dañoo amoon doole jot sa kaw nit ñi njëkk ñi ñoo daan suñ kër yi nit ñi njëkk ñi gis fi ne gis iblis fa mu nekk xam ne nit ñi njëkk ne dañoo guddoon ba pare amoon yaram noonu la leen yàlla woon ñun la malaaka am na ay junniy malaaka juróom-ñaar fukki junniy malaaka léegi nag yàlla yebal leen ci xeex boobu ni leen dem leen ngeen bokk ci ngeen remplir yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem gañe xeex boobu deuxième xeex bi xam ne parce que ñoo yéefar ñi sorante wuñu woon mais teewul yéefar dañ leen a gañe wax nañ ni jour boobu sax tuuti ñu rey yeneen bi mais est tax na leen a xaaj jig àdduna bi ñaata la 8 milliards de personnes jullit ñi ñaata la dañoo mat sax 3 milliards mënuñu ko France gii nii jege ñu lool matuñu sax dañoo matuñu sax pour man 2 pour cent ci ay jullit fi mu nekk nii ñu ngi mer chaque ñu ngi wàcc di wax Macron lu ko metti te nit ñi mënuñu ci dara ñu ngi jàngal fii suñu doom yi première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale nit xale boo koy jàngal da koy wax ne andi woon mbir mi nee leen première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale gis nga nañ waxante dëgg mais racisme la koy indi lu ci bëri bëgg sa réew il faut ñu wax dëgg bi racisme yu bëri lu koy indi bëgg sa réew kasa tey jii ñu ngi dégg coowal Tunisie wallaahi ku ci si ñun dinañ mere Tunisie de ku nekk si ñun na fexee xam ban mbokkam moo nekk Tunisie mu laaj ko information bu leer ni ko lan moo fi par force dina la wax ne la dafa am ku fi ñëw rey fi benn nit wala mu def fii loo xamante ne neexul ñun suñu dëkk nañ waxante dëgg koñ bi ku fi duggoon tey benn agressé agressé fi nit bu subaa dina am ci magi koñ bi ñu dem police ñu leen suñ koñ beekat wax dëgg yàlla wala koñ bi bu lëndëmoon sax koñ bi dafa lëndëm amul ay làmp wax dëgg yàlla waroon nañ waaw amul amul sécurité faaw ngeen indi ñu foofu sécurité loolu bëgg loolu bëgg sa koñ la mais nit ku nekk am nga droit boobu waaye nag ak ni nga war a defee léegi nag àdduna bi ñu ñëwoo dafa nekk àdduna boo xam ne wax dëgg yàlla fi mu ne nii dafa nekk ci terminé terminé terminé bi muy terminé nii Sénégal ñaata jeunes ñoo fi yow bëri na bu ñu waxee ñu naan ay jeunes yi amuñu carte d'identité ki toog Ousmane ki toog maa ngi jégalu ki toog Moussa amul carte d'identité voilà ma dama ne billaay léegi déglu dama ne la xale yi am 14 sax léegi am nañ passeport xale yi am 14 ans léegi am nañ léegi fii amul amatul amatul carte d'identité ñëpp am nañ carte d'identité xam nga lay xam nga lan mooy problème bi mooy mën nañ ñoo defal ca carte d'identité ba mënoo voté loolu mën nañ ne ko defal mais nit ñi ñu bëri instant yi ñu ngi commencé yeewu parce que nit ñi ñu ngi commencé xëcc boo demee ba fi nga yeewu wax dëgg yàlla nga koy daw di dem feneen yaa xayti mu la kooku tamit